bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama e, bi nga xamante ne bi wax naa ni fii ak e, fin semaine prochaine incha allah virus bi moom fii Sénégal kaa duutu fi am loolu dafa am ko teg teguma ko ci xam-xam ci ngëm-ngëm laa ko teg te jamono bu nekk damay sukkandiku ci leeru waxi ku tedd ki ndax waxam yépp leer la waaye ma bëgg a fàttali itam sunu bopp fàttali Sénégal yi yépp ni ku fi nekkal ku tedd ki ku nekk ñu koy tudde xalifa malayika yi dañu koy ruus waaw ku fi nekkal ku tedd ki ku nekk malayika yi dañu koy ruus moo tax suñuy wax ci ngëm-ngëm lañ koy teg duñu ko teg ci xam-xam waaw moo tax bala may ñëw ci coup de filu Malick Gakou bi sànq ak li ma wax ci hélicoptère bi bala ma cee ñëw damay ñëw ci waxi ku tedd ki ba noppi ci Chaban la ñu nekk weeru Chaban ku tedd wax ci ni yàlla seede na waaw yàlla ci boppam seede na ni maanaam cant gi mu koy sant ci xasida gi yàlla itam dafa wëlbati ko santaat cant ak cantam waaw wa shahida li bi am ni shakartuhu waaw yàlla sant na ne sant naa ko bi hadihi al qasida ci xasida bi waaye wa annahu moom it shakara shukuri lahu biha min chaban ama balfaji waaw bi ko santee ci weer wi weeru champagne wi moom it suñu borom ci boppam dafa ma sant ci weer wi ba noppi sant ma ci cant gi ma ko sant waaw mu wax ni itam ku tedd ki wax ni ñu xam ne bu wér ni yàlla jënd na li ma ko doon jaay waaw ci sutura alimtu anna minniya shatara ma baahu anniya bayan satara ngeen de maanaam ni muy waxe diggante ma boromam maanaam li nga xamante ni bii moom daf ko doon jaayanteeg boromam waaw suñu borom sutura la ko jënde jënde na ko jënde na ko sutura waaw mu tekkee ni bayyana lil wal xabiru tabyina mughnin dunahu tadbiru tekkee ni illaya xaadal ilma wal halala wa li yaxtaara fala idlala tekkee ni naafihu bil mubaahi te jaayante ngeen waxoon wa baxdahu ishtarahu bir rabaat waaw ba ko yàlla jëndee itam bénéfice ba dafa bari te tey jii de la dimanche suba la altine mu ne illa yaxaadallahu min yawmil ahad mawahiba la baqiyil muqaddimil ahad ci bisu dibéer bii waaw la ko yàlla jox ay fayam yàlla mi nga xam ne moo éternel moo fii def waaw ci la waxee ni itam mallaka ni ma axjalal muluka bila laqat wa axjala suluka nee moom li ko yàlla jox dafa gàcceel li nga xam ne moom la buur yi am ñu yàlla jëy fii ci planète bi ñu doon ay buur li ko yàlla jox dafa gàcceel loolu ci lu dul muy jëflanteeg ñoom mu leen di affronté wala dara nee na dafa gàcceel itam ñi nga xamante ni bii dañoo yoroon ay ngéer leen di tudda ay turuq wala ay confréries yi maanaa daal settee gi ko yàlla settee yonent bi settee ko xam nga waxoon naa ko ca wayoon waaw maanaam mom dañu ko ber dafa beru lim am la kenn amul waxe nako ko woné nanu ko nu ne ixtasani lahu malam yakuni wala yakunu li siwaye bikuni illa yaxaada lahu malam yakuni wala yakunu abadan li mumkin jutta bi mufradin lana faaxal jumal qutta lana muhjala jaysin wa amal في من اللهو قتابي ولي الحقولا E fa mu ne uri li wacc maliki sabila kulla muridin sadu seen nabila itam foofu la ko waxee maanaam borom xel yi boroom xel yi ñi nga xamante ni dañoo nekk muridan sadiqan wa nabilan waaw ñoom la ko yàlla jox ñi nga xam ne intelligence ci ñoom la yem intelligence nag dafa vague dafa am négativité am positivité bu ñuy wax ci ku tedd ki intelligence bi positive a tax ñuy wax ñun foofu lañuy ñuy teg suñuy wax waaw moom moo wax ni mun na alayya bi hulumil asfiya wa bi kitabati kulla dasfiya moo ko moo ne yaa man yarumu dafa kulli daayi fala tufariq matlaba shifaa'i wadum alayhi fil masaa'i wa sabah wa axlisan tanal shifaan wa fala moo ko kon bu nu neexee gëm ni ñun virus bi faneen la jëm waaye fii dafay romb yi dem loolu ci ngëm-ngëm la tege tegewul ci xam-xam scientifique yaa ngi fi ñu ngi def seen liggéey waaw sama remède bi jarul ñu koy xumtoo ndax dëgg la dañu ko testé gis ko faj na ñett waaw te daa fajoon ñaar depuis le 2 avril 2013 la fajoon ñaar ma boloké ko ba le 2 avril 2020 ma génn ko mu faj ñett doonu lu kenn yi xamtoo kenn mënu koo ko tëdd ki la ma ñëw nag ci Bamba Malick Gakou maa ngi tudd Bamba Malick Gakou ndax bi ma wooyee léegi minuit moins douze la ma woo waaw amoon yéene yi wut hélicoptère wut autorisation waaw ci autorité bu mag bi ndax président de la république fi mu toll nii ku bëggoon a voler jëm fenn yi def dara itam faaw président bi daf koy valider sinon du mën a am waaye lu mu ci mën a doon rek yéenam egg na moo tax bi ma raccroché moom ma jël xalima gi wax ni kent yàlla ko moom maa ngi koy sant waaw di jaare ci sama bunt waaw foog di sant bamba di sama buntu te moo yor caabi yonent bee ko wóolu jox ko caabi demi di covid dix-neuf bi wëndeelu xadima rasul képp laa ci wóolu wax naa ko léegi président Gakou Bamba Malick laa ko tuddee moom Gakou minuit moins douze la ma woo ci téléphone ni day wut hélicoptère bëggul mu senn yéene la rek ju am ci biir réew mi waaye ma ne ko jaratu ko ndax daa yéeme ma ne ko bal bi day takk ndax virus bi day dem feneen waaw waaw ma ne ko jaratu ko ndax virus bi feneen la jëm waaw fudul fii ci àdduna bi hmm? moo tax ma ne ko Malick nag yow te yéene rafet na ku tedd keel lay fay doo am fitna waaw laa ko ci tegal ni ko Bamba Malick sa yéene rafet na ku tedd ke lay fay ba doo am fitna wa salaamun ala man ittaba a huda